Who mbokki internet euh, Mak TV euh, waaye it mbokki internet euh, Dental TV gannaaw ba ñu nuyee ñu amaat mbégte àndaat ak yéen comme ni ñu koy amalee saa su ne rek di leen wax ni toujours ñu ngi fi nga xamante ni mooy ci Touba Mbacké li ko waral nag mu di bés bi nga xamante ni moo di 18 safar bi nga xamante ni moom la doon féete ci àdduna mépp waaye nag rawatina fii nga xamante ni mooy ci Touba tey nag ñu ngi toog ak benn nit koo xamante ni dafa rek particulier gannaaw nag ba nga xamante ni dund nañ lii di màggalu Touba ba noppi ñu fas yéene rek wax ak taan xamanteni mo di eh, maître eh, Souleymane Fall nek nak avocat eh, fële nga xamanteni ni ci France mo may ñu rek ñaari wala ñetti minute yo xamanteni ni dañ ka fassiyene waxtaan ak mom ci li nga xamanteni ni di dundu professionnel waye nak ci waxtaan li nga xamanteni ni mo dox ci digantem ak ñi nga xamanteni ni ñoo di njabootu Serigne Touba dañ koy bayyi laataa ñu def dara rek mu daal di nuyo ba pare nak daal di présenter maître ñu ngi leen nuyu. ma ngi leen di musluji ziar di muslu ci setané ak njabotam di sant Cheikhul Khadim bu wér a wér di sant samay waajur di massawu coono coono bànneex la sax bokk taalibe yëpp ak képp koo xam ne Serigne Touba wooteem bi wuyu si nga ko muy màggalu Touba gi di bëgg yu lool ci jataay bi nga xam ne ci ngeen ma woo ngir ñu waxtaane jëmmi Serigne Touba ndax le début et la fin sera Serigne Touba. dengen euh, li nga xamanteni mom la maître wax le début et la fin sera Serigne Touba euh, donc laataa ñu dugg ci euh, ki nga xamanteni moy ku tedd ki di Serigne Touba est-ce que mën nañ xam kan moy maître sulaiman Fall. waaw maître ko du Fall du la neen lu suñu borom limu wax ni fay génne leer ci biir lendeum ndax ginnaw bi ma ni ñëpp gis na né Serigne Touba dimbali na ma ba lo xamné japp nañ ne nit ku ñul mënu ko doon euh, dimbal na ma ci ba mu mëna nek muy jang sama jang ba agalé ko fële ci France ginaaw bi ma ko tàmbalee ci réewum Sénégal ba nek fa avocat légui avocat international sax lay mëna wax ndax ma ngi intervenir ci France ndax inscrire barreau Paris la inscrire ma ngi intervenir tamit ci dëkk bu bu ñaan Sénégal lolu nak liko waral moy dimbalu serigne bi rek ndax bi may ñew ci serigne bi bobu awuma ma Touba. serigne Cheikh mu sëñ Saaliw mooy sama serigne bi may ñëw ci mom bu ma ko adiyé sax lélé mu delloo ma ndax né ma amugoo waaye maag mom muy sama buntu ci serigne Touba mom moom maag mom ba fi mu ne waxuma passu Touba waaye dama indi ay nit Touba loolu ma diko santé serigne Touba loolu mom moy li nga xamné mom moy sama présentation euh, côté professionnel zaahir bi laay wax baatin bi nak moy talib serigne Touba ndax serigne Touba euh, léeg-léeg nga am xarit sax bëgg mu nekk murit te du ko doon ndax sëriñ bi dafa tànnoon ruu yi ndax ruu yi yëpp ci benn bis lañ leen lañ leen sàkk yàlla san sama borom ne leen ana kuy seen borom ñu ne yaay suñu borom tey ak ëllëg fas yéene nañ la jaamu ñooñu di jullit ñi. ñu ne sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal ci ruu yooyu mu dem tànn ci ruu ci ruu yi nga xam ne am nañu ci wuyu am nañu wuyuwul ruu yooyu wuyu nag ñooy jullit ñi. ñu ne Cheikhul Khadim demal tànn mu tànn ci ruu yi yonent bi sallallahu alayhi tànn tànn kon sur la mu di sur sélection la. Murid moy julit plus loolu waral na may sante Serigne Touba ndax Serigne Touba moma tan man particulier moy Serigne Touba moma ma ne may ab murid nga ndax man la won duma ko tuddu ndax duma togn ndax tele lay waxe ma di ci di selal di julli ba ma gis ko ci gént mu jiite ma julli julli gi nak ngi Cheikh Rafal waaye euh ku bax ke di Cheikh becho yalla na sama borom yok ay leram yok ngeureumam mo ñewon ci firil ma sama gént bobu ndax ci waxtanam la mu ne Cheikh Ibra Fall de daawul julli waaye bu gisoon fekkoon Serigne Touba muy julli day julli ngir wormaal Serigne bi ndax bi may jiite bi may sëñ bi di jiite may julli ci gént gi boobu gis naa Cheikh Ibra ci ci gént gi. ginnaaw loolu ma ma wéyal sama sellal ba Serigne Touba feeñu ne ma yow ab murit nga kon mi ngi may xamal ne ma zimaamun wara astri la dal laay fi fi yeddi wa maa mi min min maalikin xaada bi la ni maanaam ruu yëpp la ñu nos jox ma ko man Serigne Touba ma téye ko sama loxo man maa ngi bokk ci ruu yooyu présentation sama personnalité ci côté baatin muy ab avocat laa ci wàllu àdduna waaye man taalibe Cheikhul Khadim laa ci lépp ndax sëriñ bee ma tànn xamal ma ne ab murit nga boobook léegi ma di ci dox di ci def di ci wax ba bëgguma nuru lenn lenn lenn lu dul sëriñ Tuubaa avocat sax bëgguma kaa nuru bu dee jot na tenue de travail la bu may sol bu ma ko sumee ci ak taalibe lay doon waaw bu ma ko bu ma ko ci xasee génn génn naa ci bu ko solee nag loolu lay waaye bu ma bu ma ko solul ab ab taalibe lay bëgg ñu di ma ko ràññee ndax loolu moo ma gënal lu ma am gënal euh, li nga am mu di euh, taalib bi nga xamante ni euh, moom ngay wuyoo fi nga xamante ni mooy ci Touba waaye nag fépp foo nekk rek ci àdduna mais laataa ñu dugg ci baatin bi sax dañuy desani rek ba tey ci li nga xamante ni mooy zaahir si maanaam liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy amal mu di avocat bi nga xamante ni doon nga ko mu nekk lu nga xamante ni liggéey la bu xaw a particulier waaye tamit bu bu métti ci ñi nga xamante ni mooy ñu koy exercer mais maître li bëgg xam mooy lan mooy avocat avocat ci pas. avocat si je me comme question lan suis avocat Je suis may Je man ni Je avocat ndax man suis avocat may def rek Je suis avocat. dama ci am Je suis avocat Je may liguey dama ci am je Serigne Cheikh ndax ma Je suis jang sama ci ndigalam ndax je France di Sénégal Je suis maîtrise ba def DSS e de droit maritime waaye résultat yi mi ngi ma fekk France ma tàmbali beneen diplôme foofu waaye saa yu ma woowee ku tedd ki rek muy sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw ne ko Mbàkke fii laa toll dafa ne ab njàng day sës ba ma dem ba bind ab thèse bind ko en droit maritime contentieux maritime transport maritime ak yu demee noonu ak auxiliaire de transport maritime ak compétitivité du port autonome de Dakar loolu mooy thèse bi nga xam moom laa bind mu yóbbul ko ku tedd ki muy sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw fekk ko Daara Bustaan mu ne ma loo ci jublu ma ne ko avocat fekk laata loolu mu télé woon ma juge ndax bi may génn man Université Dakar en 1997 boobu mu ngi am programme boo xam ne France ñoo ko financé ngir at bu nañu jël 100 juges te ginnaaw bokk moon ci ñu yées université waroon naa caa mën a bokk ndax 100 lim bu takku la waaye sëriñ bi moo ma tere àtte bi ma demee jox ko thèse bi mu di ko ubbi di ko ubbiwaat ni mu loo ci jublu ma ne ko avocat daa di enchaîner nag ne ko fa innahu way ni asawka yaa ahad li xaf la téem lam yushriku bi ka ahad sëriñ Tuubaa foofu mu ngi fa taxaw taxawaayu avocat sëñ Tuubaa nag daa am nuñ koy bëgg daa am nuñ koy gëmee daa am nuñ koy wóolu sëñ Tuubaa ak leneen ci xol day yàqu xol sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa képp sëñ Tuubaa dong sëñ Tuubaa xol bu mu nekk leneen du ca saf man daaqa taama xubbihi ansahu kulla xalaawatin wa ma yaxwaa waaw ba tey rek leen fàttali ni ñu ngi fi nga xamante ni euh, mooy ci euh, jannatu fas yéene nag euh, waxtaan ba tey rek mi li nga xamante ni mooy waxtaan bi ñu seq ak suñu maître bi nga xamante ni moo di maître Souleymane Fall nekk fii tamit ci këram bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci jannatu leen wax ni nag waxtaan la bu particulier comme ni leen ko waxee sànq ndax ku ne xam na ni maître avocat la au niveau international même si bu nekkee sax actuellement mu ngi amal liggéeyam fa li nga xamante ni mooy ci Touba xanaa rek di di di continuer ba tey Euh, maître ci ci ci liñ la doon laaj ba tey rek euh, métier avocat nekk na métier bu nga xamante ni euh, métier bu xaw a métti la ci li nga xamante ni yéen ñi koy def donc est-ce que mën nañ xam ndaxam ba tey mës nga si am lu nga xamante ni métti na la ba doodoo ko fàtte. loolu maa ngi ciy bëgg a tontu ginnaaw bu ma daanelee ci lii nga xam ne dafay am dug dugg ruq-ruq yoo xam ne su ma ci duggee rek. sëñ Tuuba rek sëñ Tuuba képp sëñ Tuuba dong. ba tey rek.

duñ euh, euh, ko ko bañal vraiment ñu bayiko rek xana mu continuer maître. Euh, ndax Serigne Touba ci beuyit bobu ma wax ci mu nek ci xasida Matlabu Chifaay bi may ñaan ndigal ngir exercer profession d'avocat dama wax serigne bi ne ko bayit boobu Serigne Touba wax ci Matlabu Chifaay mu ngi tekki ne Serigne Touba mu ngi fa taxaw taxawayu avocat ndax bu yalla yàlla jéggalal jullit ñi ndax buñ lay tooñ it xam nañ ne kenn nga loolu tafa taxawaayu avocat la kuy plaider pénal li nga xam ne loolu mooy plaider indulgence mooy nit bu defee njombe ba ñëw ci juge nga di ko défendre da ngay ñaan juge bi ne ko dafa juum rek waaye jéggal ko ndax xam naa ne bu xamoon ne lii moo ko ci fekk du ko def ñaan juge bi njëkk ba daan yi du metti loolu la ñuy wax plaider indulgence bokkut ak plaider relax nga xam ne nit ki da ngay weddi ne loolu ñu koy jiñ defu ko ñaari défense yooyu moom moo am devant devant le juge am na beneen défense boo xam ne ci biir euh, liggéey mën na nekk une défense en en deux temps mooy nga plaider relax ne buñ ko relaxé wul jéggal leen ko au cas wu ngeen jàpp ne war na def dara waaye kii defe naa ne deful dara waaye juge bi boo defee ne defee ne dara def na dara kon yow jéggal ko loolu mooy une une défense en deux temps kon ñu jàpp ne sëriñ bi foofu taxawaayu avocat la sëriñ bi nag daa demee na ànd ak sellal waaw na ànd ak sellal boobu moom mooy waral man sama profession d'avocat dama ciy def sellal mooy duma ci njuuj njaaj soo ma indilee dossier boo xam ne jàpp naa ne lii wax dëgg yàlla c'est léger du dossier boo xam ne am nga ci dëgg dama la koy wax carrément nga dégg ko du ma it avocat boo xam ne boo ñëwee ma profité sa xaalis ndax man xaalis taqawuma ak moom waaw taqawuma ak xaalis loolu sëriñ bee ma ko dimbalee nga xam ne lépp lu ma am rek euh, fexe naa def ko jumtukaay boo xam ne moom lay liggéeyal sëñ Touba ndax sëñ Cheikh mii di sama sëriñ dafa am bis ma ànd ak euh, ay bokku taalibe ñoom ñoo ma indaale woon Touba euh, ñu dem bàyyi ñu dem nar ma faa bàyyi ndax sëñ bi yeewi nan man sëñ bi yeewuma mu metti ma lool ma wax ko ku tedd ki ni ko daal man Mbàkke bëgg naa ëllëg ma am jumtukaay bu lëy bu rëy bu ma lëggeel Sëñ Tuubaa mu ne ma kon de na nga rafet njort kon ndekete kuy wut jumtukaay boo lëggee Sëñ Tuubaa da war a rafet njort ndax tôt ou danga ko am mooy di nga am les moyens ci moyen wu àdduna yëpp da ko am teraanga àdduna da ko am ba nga xam ne da nga mën a jekku lëggéeyul Sëñ Tuubaa bi man sama bébét ak sama yëngu ak sama dal lépp lëggéeyul Sëñ Tuubaa la waaw kër gii ma toog kër magal a tax ñu tabax ko si loolu laa bëggoon ñëw ak yow sax ñu parce que ba ñuy dugg ci bunt kër gi ñoo ngi gis résidence euh, Serigne euh, Saliou Mbacké barki démb parce que ñun fii lañ dal te leen ko fàttali ni moom mii moo ñu dalal fi nga xamante ni mooy ci Touba barki démb ba ki nga xamante ni moo di Serigne Moustapha Seck euh, su ma juumul moom fi nekkee di waxtaan dégg nañ ci ay waxtaanam nga ni ko kër gi dañ ko defar képp pour rek li nga xamante ni mooy màggal est-ce que nga ñu ñëwaatal ci lu tax nga am sabab boobu yéene boobu ba tey ji nga réaliser ko ku ne gis na mbooloo mi fi xamante ni moo fiy daje saa yu màggal jotee ci kër gi nga xamante ni moom nga tabax uniquement pour li nga xamante ni moo di bésu ku tedd kii di cheikhul xadim moom xaadim rasul waaw ndax cheikhul xadim dafa wax ni euh, ku may liggéeyal loo bëgg ci àdduna da nga ko am cheikh rafal ñu nag nañu kuy jàng de loo gis xam ko waaye kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa loo bëgg am ko àdduna nag koo fi lamb rek am na mbébét mu mu bëgg am na lu mu gën a bëgg ginnaaw loolu mu gën a bëgg liggéey Sëñ tubaa moo koy maye liggéey Sëñ Tuubaa nag du boo jógee rek def tuddee ko liggéey Sëñ Tuubaa nji ndigal da ciy jiitu ndigal lu mag li nag mooy Serigne Touba màggal gi moo ko digle moo ko tudde ak màggal digal ñu loo xam ne xeetu jaamu yàlla yëpp moo ci féete kaw mooy sant suñu borom suñu bor ba suñu borom loolu jaral ko mu ne la in shakartum la azidannakum maanaam ku sant rek ma dolli la sant gi nag du alhamdulilah cantu jëf la ndax cant boobu suñu borom di fayee mooy cantu jëf mooy li ñu su ku tedd ka Serigne Saliou Mbacke firi ñu nan la ñuy sante mu ne kuy sant da ngay bernde bernde moom mooy noos bii nga xam ne moom ngeen gis ci ci ci réseaux sociaux yi gis ko fu ne mu ne koy bernde nooy def da ngay rendi da ngay tuur deret maanaam di nga di nga rey ginaar gileem sëñ bi ni mu ko yaatalee mooy def na ci yërmande ba diggante ginaar ba gileem nee na nga togg ñam yu neex ñam yu neex boo ko déggee moom mooy bernde bi du koo xam ne mi ngi dund au quotidien bu delloo Dakar wala fu mu jógee mu ngi dundee ceebu jën nga teg ko ceebu jën kooku il faut nga di ko tegal ndawal di ko tegal yoo xam ne miinu ko di ko lekk tous les jours loolu donc bi ci la nekk nee na nga togg yu neex di ko séddale te bu mu am xàjj ak dal bi fii ñi fiy ñëw man ñu ci bare bare xaw ma le daanaka peut-être 2 pour cent wala 5 pour cent laa ci xam kon xaaj moom moo waral képp koo xam ne bëgg ngaa màggal si boo ñëwee kër Souleye Fall da am xaaj ak seen benn sens interdit boo xam ne dañ ko tegal ne ndax kër gi màggal moo tax ñu tabax ko màggal la tax ñu tabax ko moom mooy ngir jëfe ndigalu sëriñ Tuubaa boobu jëfe nag jëfe ndigalu sëriñ Tuubaa bi moom mooy sama màggal gi bis bii nga xam ne moom la ma yàlla suñu borom doon ma teg ay nattu ba bu waxtu bi jotee muy 18 safar damay xaar yeneen nattu yu gën a tar yooyu ñëwaat mu ne ma taxaw di ko gàttandu yàlla suñu borom ne ma natt yooyu teggeeku na bis ni ki tey waxal loo bëgg Cheikhul Khadim mu ne ko defal naa la lépp sëñ Tuubaa nee na bi si waxtu boobu bég naa bég boo xam ne képp koo xam ne mbég moomu ma sentir joie immense boobu ma sentir bu dee yow bëgg nga ko partager ak man bu bis bii ñëwee di 18 safar na nga ma sant yàlla suñu borom ci diggante ginaar ba gileem mooy bul bul def ginaar ba xeeb ko waaye bul def gileem ba yéem ko ndigal loolu nag fas yéen di ko jëfe di ci santale sëriñ bi suñu borom moom moo waral mu jaral ma kër gi tabaxuma ko dakaar tabaxuma ko faneen ma tabax ko fii ci Touba ngir fas yéene di ko yaatal ngir bu màggal gi jotee ñu mën a jekku ndigal loolu jooyal ko waaw loolu moo waral loolu moom moo waral euh, résidence bi nga xamante ni moom la tuddee résidence Serigne Saliou Mbacke euh, ñu ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram moom ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou Mbacke mais euh, metre dañuy desandi ba tey rek ci li nga xamante ni mooy màggal gi ndax gis nañ ni suñu juumul moom moo tax nga jugee fële nga xamante ni mooy ca France ñëw fii Sénégal pour amal li nga xamante ni moo di màggalu Cheikhul Khadim boobu mu mel ni sa diggante ak Serigne Touba donte wax nga ko sax mais nekk na loo xamante ni ku la dégg ngay wax nekk na dina xam ni Euh, sori na lool sa diggante ak ki nga xamante ni mooy Serigne Touba bu ñu la laajoon tey jii euh, fii nga toog nii ñu laaj la si euh, ni est-ce que mën nga ñu wax lenn lu nga xamante ni kii di Cheikhul Khadim defal na ko defal na la ko est-ce que dañu mën a wax ni lii teg ko loxo ni lii Cheikhul Khadim moo ma ko defal. waaw dama la junju sànk ne la sëriñ Touba. sëriñ Touba mooy génn leer ci biir lëndëm ndax man samay waajur amuñu woon dara façon pauvreté boo xalaat ci aduna man dund naa waaye Sëriñ Tuubaa dimbali na ma ba lépp looy jaaka yaakaar ne mooy si ci àdduna man dund naa ko man hôtel buy dul oto jinne hôtelu jinne wàcc naa fa sama tur la ñuy loolu ndimbal bi ma Sëriñ Tuubaa dimbali moom moo tax mu mën a am loolu man dara jomm mu ci àdduna am na benn aayaat bu nekk ci alxuraan ñu koy wax zuyina li naas yi hubbul shahawaat boo ko xoolee teraanga doomu aadama ci aaya boobu lañ koy bind waaye boo ko limee li ma ci amul bariwul te ci ànd ak sëriñ Touba te ba may ñëw ci sëriñ bi nee naa la sànq ci njëlbeenu waxtaan gi paasu Touba awma ko woon te paasu Touba jamono yooyu ku defoon 1000 francs ñëw Touba kon nag sëriñ bi moom moo ma dimbali kon ma di ci sant bu wér a wér sëriñ boobu nag ñu dimbali sëriñ Abdoulahat dafay wax ni as gor ñi ngi koy xamee ci ki nga xam ne moom moo la teral bisam bu ñëwee noo cay comporté woo sëriñ Abdoulahat moo ñu wax loolu sëriñ Touba nag dañoo defal lépp defal ñu àdduna defal ñu alaaxira defal ñu kenn ku ñu ku ñu gis ñeeñu ba mu ne bis bii di màggal gi képp ku leen ñee yéen murit yi bis boobu moo tax mu ñee leen kon bis boobu bu ñëwee Serigne Touba woote ne na ngeen ma ci santale yàlla suñu borom loo mën a ne xanaa muy question de question de vie et de mort sax ndax daaw xewoon na ci corona bi ñëpp am na ñoo xam ne ñëwuñu Serigne Touba ndigalam loolu bu ci laajte woon bakkan sax dañ ko war a joxe ndax ñun ñun la sonal pendant 33 ans Serigne bi ñuy ko sonal sëriñ bi fu nañu di ko fa yóbbu ngir mu taxaw lislaam sëriñ bi taxaw moom képp mu ànd ak noonu yi ngir lislaam mën a samp Sénégal ngir ku mën a dund sa diine dund ko tubaab bi di ko def lu ne ngir ñun ñun ñun ñu am teraanga sëriñ bi dem ci géej gi bëgg sant boromam ci teraanga yi mu ko defal ci tukki boobu kon képp kuy as gor nga xam ñun teraanga ci loolu lañ ko amee ci sëñ bi souffrance yooyu mu souffrir ci lañ ko amee ñun sëriñ Touba soo wootee màggalam gii lépp looy def da ko war a bàyyi donte da ngay dee danga ko war a bàyyi daaw ci corona bi tukki jafe woon na lool waaye dañuy ñëw jooyal ndigal loolu du suñu nag sëriñ bee ñu dimbale ñu mën koo def ndax bëggoon nañ mënoon nañ ko def duñ ko mën a def sëriñ bee ñu dimbale ngir xamal ñu ne ndigal loolu bu nga waree dund war boo waree dee da ko war a da ko war a muy màggal gi màggal gi nag lu tax fépp fu waay mën a ne ci àdduna bu jotatee nga bàyyi loolu ñëw def ko sëñ Fallou moo ko indi Touba ndax màggal gi bu jëkk sëñ bi da ko tudde ak màggal ne bu jotatee na ngeen ko def nip tabaski ndax ku ci ne fa nga dëkk nga dajale say sa sa say sa say sa sa njaboot rey diggante ginaar ak giléem def ay bernde ngir jublu ci santale sëriñ Tuubaa boromam waaye sëñ Fàllu mu tedd ma borom sañ-sañ bi bi mu ñëwee dafa ne woote na ko Tuubaa li waral loolu sëriñ Fàllu expliqué na ko mooy dafa bëgg lii daje ci penku bi muy màkk ci aji màkk mbooloo moomu di lislaam lislaam di ko sagoo di ko tiitaroo mbooloo mu tol noonu wala bu ko ëpp daje fii ci sawu bi muy dak muy muy muy muy muy Sénégal ngir màggal màggalu tubaa gi mu teg ci leneen dafa bëgg Sëriñ Tuubaa li mu ci bëgg ci santale yàlla boromam mu am benn objectif bu mu atteindre moom mooy sant santale sant boromam ba boromam bëgg ci cant gi mu ne mu bëgg Sëriñ tubaa atteindre objectif boobu mun ne itam mu bëgg taalibe yi lii leen ci sëñ tubaa digal mooy ku ma defal loo mën ma fay la ci loo mënul ku ma ci defal loo loo mënul ma fay la ci loo jomb taalibe yi atteindre objectif boobu moo waral sëñ fàllu woote ko tubaa depuis boobu nag màggal gi du feneen yow murit bi foo mën a nekk ci àdduna bu ñu woowetee ma màggalu sëriñ Touba gi bu dee sax boo ñëwee da ngay màggal dee dangaa war a ñëw màggal dee ndax loolu mooy askor ndax sëriñ sëriñ bi bi joxe bàkkan jotee dafa joxe bakkanam dafa joxe bakkanam ngir ñun ñu tedd sëriñ Touba ku ne xam na ne bu doon moom maxaama rek moo taxoon maxaama xutbul xawsu lañ ko tegal te maxaama xutbul xawsu yonent bi sallallahu alayhi moo ko fekk fii ci jàkkee sëñ Mbàkke Madina bi ne ko makka maxaam baa ngi nii

nañu ko bëgg maqaama bii ñun ñëpp ñu jóg ne man maa ko bëgg mu ne leen dafa am ay ay épreuve yu mu àndal bi mu ko génnee ñëpp a toog cheikhul kadim xadim képp taxaw ñu jox ko mu ànd ak épreuve yi def loolu kon nag benn bi mooy loolu beneen bi mooy saafi an li xaw mi mooy ñun ñii mu sauvé ñu ñu dugg àjjana te kenn duñu laaj dara moo tax mu ne tudd gi di tudd murit am ngeen ci dell bi du duxuli jannatu bi xayri isaab dugg ajana te kenn du laaj dara te ne xam ne taxawaayu bés penc metti na Sëriñ Tuubaa ñëw dispensé ñu ci taxawaayu bés penc murit dañu ñëw rek dugg àjjana kon loolu bu ñu ko xamee sa cant gi ñëw ñu xam ne sëriñ bi mënoon naa toog fii defaral ñu suñu lépp te du dem mu dem defal ñu lépp yomb murit bi li muy wër lu mu dëgër dëgër sëriñ Tuubaa ñoo di ko jox ko kon kooku bisam bi bu nee ñëw leen santal ma yaaw suñu borom bu dee jar bakkan sax dañ ko war a dax ñoom moom bakkan la joxe woon boo boole nañ ko tubaab li mu gën a ragal mooy gaynde ak nag ñuul boole na ko nag bu ñuul nag bu ñuul bi ci biir bato bi bi songee sëriñ bi sëriñ bi nee na am na lu ko yóbbu nag bi ba léegi tubaab bi gisatu ko xamuñu fu mu dem gaynde la tubaab gën a ragal boole na ko gaynde fii ba ba ñu ne ko gaynde gu ñu xiifal nag bi sëñ bi avancé dafa dox ba mu yàgg mu def benn temps d'arrêt tubaab bi ne ko de toute façon jëlal sa temps ndax gaynde gi dina la lekk boobu temps d'arrêt boobu wormaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ko bàyyil ma jiitu la mu wormaal sëriñ bi eh, ngir wormaal ko gaynde gi bi mu ñëwee dafa bóof ni xar kon sëriñ Touba ragal gi mu ragal boromam ba nga xam ne moom moo ci féete kaw ci képp kuy ragal yàlla ba ñu ne wa in ak wa inna akram inna akramakum indallahi atqaakum képp koo xam ne moo la gën a ragal yàlla moo la gën a tedd sëriñ Touba gën a ragal yàlla gën a tedd moom moo waral lépp loo xam ne yàllaa ko bind ragal sëriñ bi kon tubaab bi foofu capitule la mu jéem lu ne sëriñ bi yóbbuwuñu ko woon ci géej gi ngir muy feetu ngir wala ñu exiler ko di ko jox wala comme prison yi nga xam ne les droits de l'homme sëriñ bi dañ ko yóbbu woon pour éliminer ko ndax ñi mu fekk dañ leen a éliminer parmi eux y a des saints sëriñ bi mu ñëwee dajale seen yax jullee leen bis bu ne ñu ngi fexe nu ñu faate sëriñ bi mënuñu ko sëriñ bi dem galéré foofu joxe bakanam delu si indil ñu sëriñ bu toll noonu bu ne ñëw leen santré ma yàlla suñu borom képp kuy as gor da nga wara bayyi la nga nekkon ñëw sant ko suñu borom lool mom mo waral ma joggé ba fele di ñëw ñëw di def di fas nak diko def diko continuer diko ko fi ak yalla mu ngi may dimbalé ndax momay dimbalé mo won ko def am nañu ñu koy yéene mënuñu ko man yéné naa ko sëriñ bi dimbalé mo diko def kon lool la fas yéene ba moy dugg ba mel inshallah inshallah allah ah, donc euh, émission bi euh, xawna am toute émission mais c'est normal parce que ab talib la waxal ki ñu waxal ni ku dégg li nga xamante ni moom lay waxee xam ni nekkul euh, avocat bi mooy wax mais talib bi si boppam mooy wax euh, donc euh, ak lu ci mënti am rek nañu xam ni moom mi toog ab taalibe la ndax yamul rek ci man taalibe Serigne Touba la ndax ku dégg li nga xamante ni noonu lay waxee xam ni gëstu na bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di yoonu murit donc mu mel ni émission bi même man mii sax di wax ak yéen loolu déggee ni may waxee xam ni euh, xaw naa am fuma ma touti mais nañ ko euh, fexé ba tenir ko rek daal di waxtan ak ki nga xamanteni ni maître mu melni sax euh, danaka li ci dess bëreetul ndax xamnañ ni nekul émission boo xamanteni da fay gudd mais li nga xamanteni lañ ci jotta am donté du nekké 10 minutes sax nek na lo xamanteni amna solo lol ndax ñi nga xamanteni ni sétane di dinañ am lo xamanteni mom lañ ci jàngee non seulement ci yoonu murit way nak deug deug ab talibé ndax ki ñu waxal ni ku dégg ni mi waxe xamni ab talibé la mais maître batay dañu dañuy des rek euh, ci li nga xamante ni euh, mooy émission bi euh, résidence bi ñu nekk wax nga ko sànq màggal moo tax nga tabax ko dal moo xamante ni taalibe yi fu mën foo mënti jógee ci àdduna boo ñëwee dal fii ñu berneel la ñun ñii di wax ak yow xam nañ si dara ndax fii lañ dal ci kër yi fii la ñu màggalee ñu la si sant bu baax nag di ñaan yàlla yàlla lu yokk lu bëree bari ba nga mën di ko def at bu ne mais choix tur bi résidence Serigne Saliou Mbacké. waaw résidence ndeysaan Cheikh Béthio yàlla dimbale woon na ko mu xam ne sëñ Saaliw mooy sëñ Tuubaa man nag yàlla moo ma won ne ma sëñ Saaliw mooy dama gént yi di murid yi di rang ne dañuy siyaar sëriñ Tuubaa waaye ñu ngi rang rang ci kaw géej ñoom ñëpp ñu ngi rang waaye kenn suuxul ñu ne sëriñ bi ci biir géej gi la ne fa la frenkulaayu nit ñi di ko siyaar may rang di rang ba egsi bi ma egsee mu nekk mon tour ma war a gis sëñ bi waaye sëñ Saaliw laa gis bi ma ko gisee sama xel ne waaw ah, woon sëñ tubaa la ñuy siyaar di man bi ma ñëwee sëñ Saaliw sëñ bi ne ma nii man maay sëriñ tubaa man loolu man am naa ko kon musuma umpale ne sëriñ Saliou mooy Serigne Touba kon looloo waral ñuy dem di dem di dem ba bis ma nekk université dakaar nekk année de licence moo tax taalibe gi yàgg na ci man ñi ma bokkal promo yëpp Serigne bi lañ may woowee ngir bëgg Serigne Touba sama yëngu sama dal lépp Serigne Touba la. bi ma bi ñu bi may bi may bi ñu bis ma dem Dakar ñëw ñu ne ma sëñ bi de yow tey tardé nga ndax resto Diop si dañ fa doon séddale ay ay ay ay ay nataal muy ay photo yoo xam ne calendrier la waaye ay photo sëriñ su sëriñu mu mel ni sëñ Mansour si mu mel ni sëriñ yi gën a siiw sëñ Abdou Aziz si sëñ sëñ Saliou ma ne leen sëñ Saliou am na ñu ne waaw ma daw bi ma dawee rang fekk daanaka benn moo desoon bi ma ko jëlee mooy sëñ Saliou ma jël foto boobu def ko sama chambre d'étudiant année de licence mooy pavillon A boobu di ko wormaal di ko fomp di ko parfumé di ko wormaal ba bis photo bi doon jëmm ne ma ndongali ñëwal siyaar ma siyaar ne jàpp sëriñ bi sama loxo mu ne ma yow sax de riñaanal la yow Souleymane mu ne ma riñaanal soxna si toog moom moo ma firil loolu ndax man xaw ma lu muy tekki riñaan yonent bi sallallahu alayhi moo ko defoon mu ne ma sëñ Saliou li mu la wax mu ngi tekki ne yëkkati na la ndax xam naa ne yëkkati boobu moom moo waral ma toll niveau bii ma la ma ma toll di wax yow fii ci niveau boobu may wax ak yow sëriñ Saliou ñu teg ci ab dur mu ne ma ma ma ñëwati Touba ci ak gént bi ma ñëwee Touba siyaar ko ne ko ne Mbàkke damaa dégg ci rajo bi kuñ naan suñ mustafaa Jaxate muy wax ne dafa am xasida yoo digle ni ko jàng xasida yooyu farij bi jaayil Moustapha ci la bokk wakaana xaqan ci la bokk ma bëggoon a xam man ban xasida laay jàng man Souleymane